hommes politique n'arrivent pas à s'entendre l'armée prendra le pouvoir en français simple et clair voilà et à juste titre parce que les politiciens Sénégal moomuñu ko c'est quoi cette histoire là bu dénk leen benn réew askan bi jël seen yaakaar teg ko seen loxo ngeen nekk biir Sénégal ne da ngeen di wootee xaw ma ay lan ak mais Sénégal da ngeen ko moomul pouvoir comme opposition réunie moomu leen Sénégal santu leen Mbàkke santu leen Si Malick mais attends wax loo waay il faut respecter les gens l'armée sénégalaise il n'y a pas des chinois là-bas il n'y a pas des japonais là-bas ce sont des gens qui ont fait Saint-Cyr et West Point je le répète euh, je ne fais pas partie je m'excuse auprès de la grande muette. je n'ai jamais cité le nom de l'armée mais je veux que vous compreniez que l'heure est grave ngeen bàyyi di fooy seen xel. l'heure est grave daf leen nank rek ma ñëw daf leen nank ma ñëw. quand ils viennent on sait qu'ils arrivent mais on ne sait pas quand on ne sait pas quand est-ce qu'ils partent et autour de nous regarder partout où ils sont arrivés ils n'ont pas encore organisé des élections et c'est pas demain la veille qu'ils vont organiser des élections maintenant est-ce que dinañ juboo ak président Macky Sall ou non je ne sais pas mais il faut qu'on essaie et moi je réitère au président Macky Sall sur ce plateau rien ne va vous arriver ni vous ni votre famille faites-nous confiance et acceptez la main t parce que suñu yow xool suñu mbokk nga ay sénégalais lañu ngay sénégalais. jàppal Sall ay suma grand la mais grand bi nag su ko neexee nag day bàyyeeku quoi mais suma grand la mais nag ma bëgg a wax ci leer si on fait l'erreur de ne pas nous entendre si la rue doit reprendre ses droits le peuple sénégalais est souverain te kenn mënu ko téye. police mënu ko téye gendarmerie mënu ko téye moo tax ma ne luy xew ci dëkk bi temps yëpp sont des enfantillages le peuple n'est pas debout peuple kenn xajul ci moom du police du gendarmerie mais ce peuple n'acceptera jamais le principe du troisième mandat et je l'ai dit au président Macky Sall en toute amitié et en tout respect moo tax le président Macky Sall doit nous aider Le président Macky Sall doit aider le peuple sénégalais. Le président Macky Sall doit écouter les chefs religieux. Et le président Macky Sall doit savoir qu'il a un devoir moral de sortir par la grande porte. Et moi, je suis prêt à me mettre des gens à dos, mais je ferai tout ce que je peux faire pour que le Sénégal ne bascule pas dans le ridicule. Je le ferai.